Kipala dressing mooy prêt-à-porter bi fi nekkal góor ñi ak jigéen ñi loolu lépp ci seen biir boutique bi nga xamante ni mu ngi taarul lool tey jaay lépp lu rafet jàpp leen ni ci biir boutique Kipala mun ngeen fa fekk ay yére góor lu tàmbalee ci Lacoste ci ay chemise yu classe yu mën a dem bureau waaye tamit ay chemise yoo xamante ne mën ngeen ko sol rek ngir dem restaurant toog fex lu ji waaye duñu fàtte benn yoon suñu jigéen ñi ndax ci bili boutique di Kipala Dressing di ngeen fa fekk ay robe de soirée yu mucc ayib robe de soirée yoo xam ne fu ngeen ko sol tëll yéen rek la ñuy xool dañuy jaay itamit ay ensemble tailleur pour góor ak jigéen dañuy jaay ay kimono ay accessoires de mark maanaam lu mel ni ceinture ay lunettes de soleil sac wala dàll jaxase marque yi gën a luxe ci àddina bi lu ci mel ni Hermès jëm ba ca Louis Vuitton rek ngeen mun ñoo jot am ci suñu bagage yu rafet yi lé mën ngeen ñoo woo ci 77 247 57 77 ma bamtuwaat ko 77 247 57 77 suñu boutique nag mu ngi à côté de l'hôtel Onomo foofu la si Yoff ñu ngi leen di xaar daw si leen gaaw